mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu tuumaal bu ñuy wax doyuñu ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne ñun suñ bopp dinañ xam ne lii kat fi mbir mi féetee waaw dinañ ko topp nag di ko saytu ba fañ ci mën a yem heure yi ma jógee Diourbel pour ñëw fii ne mënu woon egg foofu noonu turandoom Abdou Faye bi ma ko tuddee sama rakk boobu noonu moom moo dem gis ko mu ne dafa am ay gaañu gaañu ci bopp bi moom moo dem ba gis ko moom ndax mu ngi fii nii Dakar moo ko rakkam Fallou Faye boobu noonu ñoom ñoo dem ba gis ko mais Abdou Faye turandoom boobu noonu bi mu demee gis ko mo dafa ne am na ay gaañu gaañu fii ci baat bi ci bopp bi nii loolu la mu wax mais rakkam Fallou Faye moom dafa ne man jën naa ndekki ba yóbbu ko ndax nee na tey lañ waroon taxawaataat ci àllar bi ji noonu léegi mu génn ñu ne ko mun loo ko gis bi mu génnee ci la taal gis ci réseaux sociaux yi ñu ne Abdou Faye dee na mu wëññeekuwaat ñëwaat di leen laajte loolu nan la mën demee ndax man indi naa ko ndékki waxu leen ma dara bu ma taal sama portable gis ñu ne ma dee na loolu nan la mën a demee mu woo ma wax ma ko man ci laa jël oto ñëw heure yi ma egsi fii nag guddi woon na mun woon dem foofu noonu CTO waaw ñu ngi woo ñëpp nag dale ko ci kaw président de la république ba ci ñi ci suuf ñëpp ñu ngi leen di woo kenn ku ci nekk foo ñu ci mën a jàppale ak noonu ci mën a jàppale nga jàppale ñu si bu mbir mi leer affaire bi métti na métti waay boo xamante ne ñu féete woon nañu foo xamante ne mën nañ luñ ci waxati mënatuñoo wax ba jot ko mënatuñoo wax ba am lu toll ni abdu waaw comme ñàkk nañ ko nag ñàkkin boo xamante ne nii amuñ ci lu ñu doy ñu ngi woo ñëpp ñu xool mbir mi ñu am liñ ci doy ndax bu dul moom itam dañ koy def ngir ñeneen itam comme moom boo sam jàll na bu pare ëllëg si biir mën na doon keneen ci ñun ñii kon ñoo ngi def intervention boo xamante ni dala ko ci kaw ba ci suuf yëpp képp koo xamante ne am nga loo ñu pon a dimbalee jàpp ñu ba mbir mi leer daal te lii bañatee am moom wax dëgg yàlla moo ñu gënaloon nga jàpp lañ ci 221, une autre vision de la télé.